am na ñoom nee nañu pour nga woo ko jot ko c'est c'est c'est très facile waaye itam nga bind ko mu tontu la itam yomb na bu fekkee te nit ñi euh, la nga koy wax lu yitteel la muy def la te itam lu ñor la ci réew mi da tontu comme li mu wax rek moom accessible na donc euh, je vois pas mal ngeen ko fi romb dem ci keneen naan da ngeen di gis ci président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom li mu wax nag dara nekku ci mais après mhm. Babacar Fall moom da koo attaqué mais dañuy ñëw ci beneen vidéo bi nga xam ne. Mhm. aide à la presse bi yaakaar naa ci lay wax. foofu itam euh, wax na ci lu yéeme. Euh, puisque aide à la presse boo xam ne euh, huit cent million francs CFA boo xam ne daanaka jàllul sax ci waa presse bi. Mhm. loolu quand même c'est très grave loo xam ne lu doy waar la. nañ ko déglu su ko defee après dina ñëw aussi ci post bi nga xam ne Babacar Fall def na ko di ko ci di ko ci di ko ci tontu ñu déglu deuxième vidéo bi del dellusiwaat. coowul huit cent millions yu ma dégg tey muy lëmbee <laughs> fan la jógee. waa les 800 millions c'est les 45 pour cent li nga xam ne aujourd'hui euh, c'est euh, nee nañu lii dañ ko jël pour euh, jàppale les jeunes travailleurs nee nañ ne lii ci séminaire la duggu lii ci formation ludique et cetera mais comme lu may wax rek bu fekkoon ne su privé la man sax m'aurait pas choqué plus que ça mais l'argent public encore une fois mais bu fekkee ne c'est un franc dañu war a am justificatif bu clair man suñu ma ñëwoon ñu indil ma les justificatifs qu'il faut par rapport à des salons par rapport à des forums et cetera j'aurais pas eu de souci avec ça encore une fois je pars du principe que l'argent public c'est public donc lépp lu ñu ciy def même lu mu tuuti tuuti même fekkee dërëm la dañ ko war a dañ ko war a justifier loolu mooy sama conviction d'ailleurs c'est ce qui m'a amené à saisir les euh, euh les organes de contrôle pour ñoom ñu mën a xool li nga xam ne moom mooy saytu bi ñu ci war a def. loolu moo bloqué fi mu nekk nii le fond. effectivement l' bi nga xam ne moom la UG e di def. effectivement alors. voilà loolu yooyu nga xam ne gars yi euh, ñu ngi jëmm a justifier fi ñu ko dugal fan la mais moom nag jàpp na ni daal dañ ko war a leeral leeral gi nag mooy ñu xool fan la xaalis bi jaar ni niñ ko ni mu ko waxee mais quelqu'un comme Babacar Fall moom nee na. entreprise de presse yëpp dañoo war a porter plainte contre ministre bi doon wax léegi muy euh, Alioune Sall ndax euh, li mu publier ci place publique bi nekkut lu mu war a def parce que nee na dette fiscale bi nga xam ne moom la entreprise yi amee loolu c'est des données personnelles mu jàppee leen un banditisme d'État euh, nous sommes dirigés par des petits gens loolu <laughs> moom minimiser na leen carrément muy ay attaques yoo xam ne c'est des attaques personnelles donc euh, un mm-hmm. un gars comme ba Babacar nga xam ne waroon na utiliser xam-xamam expérience am di ko yàlla dénk. ci mm-hmm. bopp. Mm-hmm. ak bagage intellectuel bu mu yóbbaale yëpp donc warul woon a assurer comme ça peut-être nag xam naa bi muy bindi mer na te mer mi moo ko yóbbaale souvent bu la mer yóbbaalee nag mooy loolu mais li Alioune wax ni itam c'est très grave ci huit cent millions yoo xam ne nee nga ci lii laa ko doon def bon xamuñu fan lay fi jaar daal. Mhm. voilà euh, bon Aliou Sall li mu wax ci 800 millions yi parce que et puis en tant que état bu normal xam moom dafa ñëw euh, ñu jox ko wallu communication euh, numérique et cetera mu ñëw gis ni aide à la presse bi nga xamante ni joxe nañ ko ba pare am na 800 millions xamante ni moom xamul fan la jaar. Mhm. te joxuñu ko benn explication bu leer. loolu moo tax mu daal di wax ak nga xamante ni ñooy IGE inspection euh, générale d'État pour ñu ubbi ci ay enquête pour ñu xam 800 millions yi fan la jëm bon loolu moom ku ko ci mere yaakaar naa dëgg na yàlla damay jàpp na ngaa gëmul na ngaa réew mi. parce que boo ñëwee euh, ci ministère boo xam dañ la ko jox nga fekk fa ay lu leerul sa bopp sañ nga demande quand même mu leer et puis xaalis fa la dugg parce que moom nee na bu fekkoon euh, xaalis bi dañ ko jox ay justification yu leer moom nee na du am problème pour di ci kii yooyu mais nee na li mu leerul si noppam moo tax. te nee na xaalis bi du xaalisam du xaalisu sénégalais yi la donc sur ce pour man lu normal lay def ndaxte ñu ngi siy faral di tuumaal ñu si bëri ku ci nekk yaa ngi si génn di wax waaye moom fi mu taxawee nii ak li mu wax man jàpp naa ni ah, amuñu maanaam euh, patron presse amuñu problème direct ak nga xamante ni moom mooy ministre bi ba Babacar Fall jàpp ni bon et de la presse bi euh, maanaam li nga xamante ni moom mooy det euh, det bi det bi ci wàllu impôt yeeg yooyu ak euh, ñi nga xamante ni moom mooy données personnel yi mu ko woowee ñu ñu ci publier ni ni kii moo am nu mu tudd TFM moom 28 pour cent RTS am 21 et cetera bon li ñu leen toppalee noonu mu nekk si internet bi bon bu fekkee droit may na ko je pas xëy na du ma du ma du ma si mën a sori trop bu dee comprendre ndax loi bi ko moom en tant que ministre bi communication mu daal di koy publier bu fekkee droit may na ko bon pour man lu baax la su fekkee droit mooy may ko ah mais patronat bi nañ dem porter ko plainte pour man bu dee du droit am rek pour man seen seen am nañ am nañ habilité dem dem attaqué ko nga xamante ni moom mooy euh, ministre bi par contre yenn wax yi pour man jaru ko parce que Babacar Fall déjà nu mu ni mu waxee nii mais gouvernement Sénégal mën na ko porter plainte parce que ñoom ñëpp la attaqué ah. euh, nous sommes dirigés par des daf leen attaqué en fait waaw par lan petits gens loolu déjà doo comprendre xam léegi bu ko bu ko convoqué woon tey mën na utiliser euh, langage français bi ne petit bon tekkee ko lu mu ko neexee en fait mais pour man pour man wax ji parce que li ci li ci bizarre mooy gis nga dafa am benn jour boo xamante ni maa ngi gis kii di ko wax démb sax Amadou Ba amalu Ba juriste bu Pastef maa ngi dégg mu koy wax mu ni euh, yenn ci presse boo xam ne sax Madiambal Diagne nee na ñoom dafa am lu ñu bëgg maanaam dañu bëgg par exemple kuñ ci téye wala kuñ ci jàpp rek comme ça euh, comité international bi wax ci yow maanaam Euh, addina bi naan noo arrêté nañ ma jambal addina bi naan noo arrêté nañ arrêté nañ Babacar mu nekk beneen tournure mu nekk beneen débat pour man nag loolu euh, état war na ko éviter benn parce que lu si gagné dara mais aussi tamit ñoom presse bi tamit dañoo war a nekk ay responsable aussi parce que c'est vrai que Babacar Fall yàgg na di am ay attaques yu xaw a dëgër ci état yi fi faral di nekk de temps à autre mais pour man nag dafa ëpp quoi jarul ñuy waxee fii parce que loo xamante ni en tant que journaliste pour man mooy li ma wax sànq rek ñiy défendre patronat bi rek mooy ñi am benn intérêt direct ak patron yi. Mm. maanaam de presse yi mooy ñi am intérêt direct ak patron de presse bi. Mm. mais tant que ñi nga xamante ne amuñu benn intérêt ci patron de presse drance euh, maanaam défendre wuñu euh, thèse bi ñuy wax nii yëpp amul benn reporter bu koy défendre et d' ailleurs ñu gis béy di ndaw bi nga xamante Sénégal ban problème la am ak patron parce que affaire de contrat. te jamono bii ñu ngi si yoon ba waa Synpics bind benn benn lettre di ko envoyé nga xamante ni mooy DG euh, Sénégal donc maanaam ñun dañu am problème ak suñu patron yi patron yi da am problème ak état bi te patron seen état bi problème ñu am ak état bi yëpp entre ñoom la ak état bi te loo xam ne seeni i poste bopp la dem man su doon sax comme ni ñu fiy wax dal di waxee li fi jot a xew bëri na trop mais imaginez vous benn journaliste boo xamante ni yow si yéen a bokk même corps boo leen nekk ñu ne la dafa am bu am 8 mois ñu doxaloo ko cinquième étage mënoon na ñàkk bakkanam ñu ne la beneen journaliste oto moo ñëw jaar si tànk bi ma nga ma nga ma nga ma nga hôpital entraîné nañ ko ñu ne la beneen waaw beneen beneen kii euh, ab sa aan di di di sen nekk Seneweb suñu kanam keroog bi bi ko policier yi di di arraché téléphone suñu kanam fee ne euh, nu mu euh, monument bi côté suñu kanam vers 17 heures 18 heures ñu fi am yëpp ak nit ñi suñu liberté ñun ñëpp man doon ñu fi brique torture nañ ñëpp nangu nañ suñu portable loolu yëpp gars kenn waxul te te vidéo yi mi ngi circulé ci internet bi mhm. amul benn patron de presse bu ko dénoncé jamono boobu noonu après ah, ah, ne nag buñ tëj bi mooy solution bi ñu tëj seen organe mais tëj bi pour lan bu fekkee dañoo war a jàpp dañoo war a fay ñoom ñu wéeru foofu tëj seen organe ah mais nañ tëj nañ tëj man de ñaanu ma yàlla wax dëggu ñaa benn organe de presse tëj. Mhm. mais bu ñu demee ba bu ñu te duñ fay ñu ne dañuy tëj. ah nañ tëj mais pour man daal li fi amoon te lu fi am mais Babacar Fall mu wax ji dafa ëpp pour man. wax ji ëpp na trop mënoon na ko gën a wodd quand même. Mhm. Euh, te buñ dama si mettre rek après bu ko bu ñu ko plaintee wala dara am si donc. xale yi bu ñu ko defee soixante douze a amaat buzz. Mhm. c'est c'est dommage en fait. comme d'ailleurs ni ñuy def euh, bu euh, nu mu tudd euh, per Bécaye maa ngi gis gars yi ñu ngi koy vaar mhm, di ko génneel ay vidéo démb mag di ko wax ne ko yemal danga war a noppi wax waru la wax dëgg yàlla donc bon pour man critique ak gouverner ñoo ànd yenn saa yi da ngay gouverner ànd ak mën a encaisser ay critique lu la wax itam nga jël ko positivement gérer après le reste ñu xool mais dans tous les cas euh, donc euh, coow loolu ñun danañ ko gën a topp ci yeneen i débat muy presse bi gouvernement bi presse bi gouvernement bi ba tey coow li ba mu ngi wéy di gën a metti parce que comme ni ñuy wax rek aide à la presse yi ñu affiché nii euh, même journaliste reporter yi sax ñoom ñu ngi commencé poser bu la question fan la xaalis bi doon jaar fan la doon nekk ñan ñoo ko doon jariñoo fan lañ ko daan jëlee donc tout le monde se pose des questions yoo xam ne am na ay réponses yu mu laaj yuñ ko yu ñu war a joxe donc nag lan moo war a nekk suite bi bu ñuy joxeeti aide à la presse ñan lañ ko war a attribuer mhm. naka lañ koy joxe loolu nag dafa war a euh, doon liggéeyu gouvernement ba nga xam ne ay eh, loolu moo tax sax Aliou Sall di bëgg di ñu recenser defaraat affaire yi waaw voilà organe de la presse yëpp nga mhm. xamante ni voilà ñu recenser ñu ñu leen mhm. euh, ñëpp ñi nga xamante ni aide à la presse li si bizarroon mooy da ngay ku di ëppale et la presse bi koo xamante ni dafa yor organe di employé plus de euh, centaine de personnes par exemple ki am télé am rajo am am site site d'internet kooku warul tolloo ak ki nga xamante ni dafa yor benn benn site wala koo xamante ni dafa yor benn machine am ak benn caméra am léegi nag malheureusement euh, li nga xamante ni moom mooy corruption sax laa mën a wax bi ci amoon mooy dañ doon dem si yenn euh, yenn convention yi mais da nga dil bi bu mu benn 4 millions chaque mois. Mhm. wala chaque 6 mois mi ngi am benn 6 millions. Mhm. yow mi nga xamante ni yaa yor di employé benn nombre de personnes bi doo ci am loolu. donc dil boobu noonu mu nekkoon benn benn lobby bu koy faral di séddoo di séddoo. ñoom la ñuy fa faral di wax naa la ñoom ñooy rakkaay yi quoi. waay <laughs> ñoom la tuddee rakkaay yi même Lonase bi na ma yàlla baal Lonase moom dafa bëloon ay rakkaay. Ah, waaw Lonase yaa doon ñëw Lonase. nga ñëw nga gis benn waay boo xam téléphone la yor iPhone mais xolal day ñëw taxaw na le ba Lat Diop ñëw mu taxaw filmé Lat Diop benn cinq minutes. waaw ah, après xoolal di ñëw encaissé perjé moom. te convention yi da ciy am. day am donc affaire bu bizarre quoi moo tax daal. loolu réew mi réew dëkk bi. fekk nañ lépp ah. vraiment. xam nga moom bu ñëwoon laaj ñu. dañ naan ah man de wax dëgg yàlla daan naa gis ci terrain bi nangam ak nangam ah te lépp nag ci ay xew-xew Lonase la daan xew. donc am na yoo xam ne nag moom. te rakaay yi ma lay wax ni ministère yëpp la ñu amoon ay convention. boo demee primature dañ fay nekk. nga dem LONASE dañ fay nekk. Mhm. fépp fa mënta nekk dañ fay nekk. Mhm. te dañuy enquête chaque weer ay convention yu yu bëri te voilà. c'est compliqué quoi. doy na waar daal xaalis bi daal da daan circuler di la romb <laughs> yow. des fois nag nga gis muy circuler nii di dem. <laughs> doo ci sañ a cof <laughs> doo ni nangam te pourtant yow yaay dem ci terrain bi liggéey ko des fois. yow itam yaay wàcc. subir les conséquences yaay nekk ci risque yow yaay bàyyi. Euh, lu bari ci sa ginnaaw. Mm. ñàkk ay nelaw ñàkk lekk xiif sonn. Euh, aspiré gaz lacrymogène yi fii mm. gars yi di la daq ngay daw mm. fii yenn saa yi nga dugg ci taw bi risqué mm. xam nga euh, boo fekkee reporter buy xuus ci biir ndox mm-hmm. ak taw ndoxu taw ni muy mel des fois mm-hmm. y a beaucoup de risques nga ñëw xuus def sa liggéey donc ñooñu nag dañ leen war a jox cër bu mat sëkk mm-hmm. buñ la joxee nangami million ne la lii seen ndimbal la ñoom da leen jox au moins yi nga xam ne mooy prime de risque yi yenn saa yi nga am sa mm-hmm. reporter bu wàcc jël ay risque yëkkatil temps ne ko ah maa la jox lii sa mm-hmm. prime de risque la da nga koy yóbbu fenn muy def dara jox ko prime de mission ne ko lii kat mm-hmm. bàyyi ko sa kër lii yóbbaale ko pour yow la nangam nangam su defee dara lu am solo nga yokk ko doole na ko maa la jox lii pour amee pour nga gën a accélérer sa liggéey mu gën a dox ñu gën a avancer mais daal yal na yàlla dooli yéeme na ci réew mi la xewee presse danañ ci ñëw ci yeneen débat yoo xam ne nañ